ay li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Ndiaye. jërë ngeen jëf lu ne fang de su ko jeex fitna dëgg tribune nee nañu dafa neexut a dégg waaye moom la ñuy dund ci campagne électorale bi yëral xët mu njëkk na it keneen ku bokk ci garde rapproché yu sa bopp journal ñu ko jëm te am na kenn ci waa kër ku ñu ba ci loxoy procureur ba violence gi am ci campagne électorale bi Vox Populi moom la xëyee ci xëtam mu njëkk ba tudde ko campagne des sauvages mi ngi ñuy xamal xeexoo yu am ca Mbàkke ci diggante militant yu yeewi askan wi ak militant yu UCS ba ñu bari jële cee gaañu-gaañu fii ci Ndakaaru it yéenekaay bi nee nañu am nañu demoon songi kër Pape Diop ca Mermoz ña fay jàppal tànk Zator Mbaye ñoo demoon songi farando yu Baye Ligueye libération nañu campagne électorale baa ngi jax lool ak loolo candidat yu ci bari ak seeni kàddu ñu ngi ci yéenekaay bi muy Ousmane Sonko di Barthélémy Dias Soham El Wardini Birame Souleye bu Ndakaar source waa nee nañu teeru démb ci HLM fa la waxee ne gars yi mu di yeneen candidat yi koy diir mbagg bu ñu ko ñemee woo leen ci ab débat public kenn ku nekk ñëw indi programme teg ñu jàkkaarloog askan wi Abdoulaye Diouf ne bu ñu ko defee bu boobaa ci la ñuy ne duma seen morom ci genn wet ci wetam moom Diouf ci yéenekaay bi beneenub candidat fa taxaw mu di Barthélémy Dias journal bi nañu ci kanamu mobilisation gu rëy gu waa yeewi askan wi def fa la siiwale yi xamee ne bés yi góor a koy bay soleil national nañu candidat Benno Bokk Yaakaar ca Mbàkke di Gallo Ba diggée na démb ci conférence de presse bu mu doon def ab hôpital niveau 1 ca Mbàkke bu ñu ko falee diggée defaraat marché baak stade municipal bu Mbàkke ba bu naa mataal ne bu ñu ko joxee Dakar Plateau dina ko liggéey ci téeméeri fan ca Pikine daawur ñang njaay ma fa newoon te ñu jëlee ko fa soleil national ne nañu moo bëgg a dellu siwaat fukkeet ak ñaar moom la Pape Diop gis-gis gis ñu gis ci l'observateur waxi campagne électorale bi waaye ci weneen anam mu di campagne bi ak li mu ngëneel ak njariñ ci koom réew mi woppi coronavirus gi ci réew mi professeur Moussa Seydi mi ngi yëglu ak di dànkaafu ci ñuy jëfandikoo antibiotique yi di dem ba ci ëppal li leen mën a jur jafe-jafe yéenekaay bi nañu doonte gis nañu ne omicron bi mooy variant bi gën lewet yi fi gën jaar terewul dansé bu rëy ci ñu ñàkkawul woppi am suba ndax dañoo corona covid 19 ni mu mel ci biir gaynde yi ne nañu tax na seenub entraîneur di Aliou Cissé mi ngi ci jaaxle gu rëy lii rëy dëgg mi ngi ci record yéene mu di Kalidou ko coow coowal ni Sénégal li fi calmé woon jugaat na libération mi a juróom benn weeri kaso yoo xam ne benn ba lay tëdd l'observateur nee nañu moom la tribunal flagrant délit bu Ndakaaru daan Modou Diouf Modou Diouf ab commerçant la bu am ñaar fukkeet ak ñeent dafa takk jabar bu yàggul jëloon xaalisam yépp yamale ko ca céet ga commerçant tàmbalee daanu tax mu dem ci benn boutique chinois sàcc fa téeméeri robb ak ñaar fukk ngir suqaliwaat commerce am CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal seen savon yi di créole NSIA santé famille ak NSIA auto ak seen Opalia ñoo leen doon may ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm bu baax di santa sant ak yéen ñu doon teewlu xibaar yeeg RFM bokkoon na ci revue de presse boobu sax coronavirus geeg suñu kaan ba ca euh, Cameroun Abdoulaye euh, xalaat bi ma ci am rek mooy Sadio maane moom <laughs> nan na ko isolé <laughs> benn bañ ci gémmiñ dafa war a weex tàll Sadio maane dañ ko isolé wutal koy docteur di ko jox ci mbante mbaare ndax daal macha allah mooy sunu yaakaar corona gi bawul kenn mu ngi lawee nu ne ci réew mi waral sax waa kër léegi askan wi ñetteelab dose ci wàllu ñàkk gi euh, dina doon dimbal ci xeex bi bu nu sukkandikoo ci xalaat bi nga xamante ni directeur bi ñu dénk fàgga fàggaru gi ca ministère de la santé am na ko ci di docteur Mamadou Ndiaye ci Diana Malafi ci Sédhiou moom benn sage-femme bu fa askan wi door ba ñi nga xamante ni ñooy waa kër docteur Mertier ba fut dogal ñetti fan yi grève li ko dalee tey ci alxamis ji fas noo yéene laalati benn malade bu jógee ci woowee askan lu may dañoo lijjanti euh, seen doxalin woowee di fajal seen bopp ba ci ay dóori euh, sage-femme ak yeneen Euh, péage pont péage bu Foundiougne noppi na macha allah dimanche la euh, dallu gi euh, pont la boo xamante ni guddaay junniy mètre ak ci fan dinañ may dem ak dëkk gi waaye njariñu pont boobee bu Foundiougne mooy yombal dem bi fu mel ni Casamance Gambie waaye dindi bu baax wala wàññi naqaree dem bi diggante Foundiougne ak réew de gox ya fareek Île di Saloum Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi may sa mbéy wax ab taalibe boo xamante ni mu ngi tolloon ci lu jege fukk wala lu ko yéesas lëf ci at faatu ñu nekkoon ci gëstoog enquête waral paatu gi ginnaaw si lëkk ñi nga xamante ñooy takk der yi euh, daal di euh, jibal ay laaj jëmee ci sëriñ daaraam mu mujj nangu ci xibaar ne daal euh, lii di paatu gi mu ngi bawoo ci ay dóoram Pabal Gueye daanaka lépp mu ngi gën leer gannaaw faatu ab ndongo goo xam ne mu ngi amoon lu tolloog fukki at ca quartier Lansar ba taxoon ñu daal di tegoon loxo ki nga xamante ne mooy sëriñu daara bile suñu sukkandikoo ci rapport autopsie bi ñuy xam ne nag taalibe bi dafa faatu gannaaw ay dóor yu métti yoo xamante ne moom lañu ko dóor ba tax na mu am ay gaañu gaañu ci yaramam bi ci li ci bari rawatina ci bopp bile suñu sukkandikoo ci xibaar moom sëriñu daara bi daal nay leeral mbir yi di xamle nag ne moom moo ko doon dóor gannaaw ba nga xamante ne mokkalul xët yi ñu ko joxoon ngir mu waroon ko jàng ci bés boobule mu mujjee nekk ay dóor yoo xam ne jéeye la mujj indi suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne mooy sëriñ daara bi di xam ne ne ba tey ni bugg ko woon a faat jamono ji nga xam ne mu ngi nekk ci loxoy commissariat bu ndaamaatu ba tey terewul nag enquête bi mu ngi wéy ngir gën a mën a indi ay leeral ci mbir yi naka la tëddee Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média jërëjëf Pape Balla ñu waxtaanee wér yaram ak jàngoro jàngoroy coronavirus ak xeexin wi Sénégal kër docteur daal dina nangul ñi nga xamante ni ñooy askan wi ñenn ci ñoom rawatina ni nu duppee euh, personne cible di ñenu gën a diir ci euh, wàllum kon xeex be corona ngir ak càmmte jëmee ci ñoom ñu defal leen ñetteelu dose ak euh, ñàkk directeur bi ñu denk lépp lu jël ci pàggandiku gi ca ministère bi yore wér yaram moom jàpp na docteur Mamadou Ndiaye ne loolee nekk ñàkk geneen dina gën a yombal xeex beeg jàngoro ji ñu déglu ko Mamadou Ndiaye ak Jo Marone. vaccination dafa ànd ak lu ñuy tuddee lu ñuy tuddee rappel. rappel mooy labbali. labbali xeex euh, soldats yi nekk sa biiru yaram. booy ñàkku dañ koy labbaliwaat pour mu gën a am doole. loolu képp ki nga xam ne miin na vaccination yaa xam ne xale yi wala nangam vaccination dafa ànd ak ay rendez moo tax it bii tamit boo seetee nit ki dee doon ñëw tollantiwaat waaye nag puisque vaccin bu bees la am na li nga xam ne dañ cee jotloo dañ ko ci xamul woon bu ñu demee ba nemmeeku ne ko vaccin boobu soo ko jëlee bu demee ba passé ñeent weer juróomi weer wala juróom-benn weer dañoo seetlu kat que li nga xam ne li nekk ci sa yaram di xeer doomu jàngoro doole bii day wàññeeku dañ koy tollantiwaat jëlaat beneen dose beneen rappel am na fu ñu koy troisième dose sax mais dose de rappel la moom mooy tur bi nga xam ne ñun moom lañ ko jox fàttali yaram lii kat da nga war a xeex feebar ko loolu moo wun calendrier vaccinal bi nga xam ne yor nañ ko covid 19 bi léegi loolu dose boobu dugalaat ko mooy ñetteelu dose soo ñëwee ba am benn ci calendrier bi am na ñoo xam ne dañ leen di wax trois semaines nga jëlaat deuxième wala deux mois nga jëlaat lu mel ni AstraZeneca nga jëlaat nga doon am mais léegi dose bu mujj bi nga jël utile su motee juróom-benn weer saa boo ñëwee ci suñu bërëbu ñàkkukaay yi structure de santé yi dañ lay joxaat benn dose de rappel képp ki nga xam ne am nga fukki at ak juróom-ñett fekkee ne jël nga sax dose mu njëkk ak nga tollante ko ñaareel bi boobaa su motee juróom-benn weer bu nga jël ñetteel mu ngoog leeral yi docteur Mamadou Ndiaye ci ñetteelëp euh, euh, dose boobu nga xamante ni kër docteur léegi may na ko ba tey ci xeex beeg jàngoroy coronavirus ñu des ak waa kër docteur ak ña fare ca poste de santé bu Diana Maleri euh, fële ca Sédhiou ñoom nag daal di mer ba fut ndax kenn ci ñoom di sage-femme bu fa askan wi ñenn dóor ba dal di ko sonal lool moo waral sax grève bu nu fas yéene sumbali ko dalee tey ñoom liggéeykat yu poste de santé bu Diana Maleri dañu ci teewlu secteur général union régionale bu Sud Sas Sédhiou Bodian jaxate ak Bakary Konté am suñu naataangoo boo xam ne dafa nekk ci poste santé Janamalaari boo xam ne dafa nekkoon di liggéey ay samba booy yu dëkk ca dëkk ba fekk ko fi muy liggéeyee ci guddi ñu attaqué ko waxuma la ci biir liggéeyukaay bi mais ci këram lañ ko attaqué te li tax ñu attaqué ko teguñu ko fenn mooy lan mooy dañ ko indil non seulement malade bi ñu indi du malaatam ndax moom sage-femme la te malade bi nu indi du jigéenu wérul mais beneen bi ci des dañ koo fekk mu feebar mu yabal leen ci ki nga xam ne ndax ñaar lañ fay doon ci ki nga xam ne moo fa nekk pour mu mën leen a gis ñu xamal ko ne loolu du mën a nekk ci loolu lañ ko ubbee lañ ko fekkee ci biir këram euh, euh, duma ko gaañ ko ci bët bi nga xam ne sax gaañ nañ ko ci yaram mais gaañ ko ci bët bi nga xam ne daf bi ko opéré ak léegi motul sax deux mois ba mi ngi noonu dañ ko yóbbu pour ñu xoolaat bët boobu gis nañ ne fii tamit du benn yoon du ñaari yoon mi ngi fii am moo tax bi ñu waxtaanee ba pare ñu te banque suñuy loxo lu mot euh, ñetti fan muy euh, alxamis aljuma ak samedi population bi pour xamal leen ne su ñu amee lu leen metti ci ñun am nañu yoon yu ñu mën a dem waxe ko fa ba seen métit saafarawu te du ñu dal ci suñu kaw ndax ñun jóguñu ngir dal ci seen kaw beneen bi ci des mooy di ñu ngi bëgg a dànkaafu aussi ñi nga xam ne ñooy autorités yi muy autorités yi nga xam ne ci wàllu faj la autorités ñooy administration ak ñu yor sécurité xamal leen ne ay liggéeykat lan te ñoom ñoo ñuy jël di ñu yóbbu ci àll bi. bi ñu ànd tey ak Jo euh, Mouhamed Jo Diop dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñu koy tàmbalee ak résultat yu quatrième journée bu coupe d'Afrique des nations bi am fële ca Cameroun ci groupe E bi Guinée équatoriale Côte d'Ivoire moom moo ko daan benn bal ci dara Max Alain Gradel moom mooy ki dugal bit bi gannaaw buñ ñu jongante juróomi simili ci groupe F bi Tunisie Mali moom moo ko daan benn bal ci dara Mauritanie euh, Gambie daan ko benn bal ci dara muy nag gulet euh, Gambie di bokk ci coupe d'Afrique des ndam ci jongante boobe scorpions si mooy jiit yi ñoom mujj daan Mourabitoune ñu Mauritanie yi kon benn bal ci dara muy derbi boo xam ne diggante ñaari dëkkandoo yu Sénégal benn doomu Sénégal di envoyé spécial bu groupe Futur Média rawatina RFM di Youssouf Bodian teewee na ko foofe ca Cameroun. jiit yi daal di bett mat guerrier yu Mauritanie Mourabitoune yi encaissé ci fukkeelu minute de jeu. Abdoulaye Diallo moo dugal bii bu rëy attaquant bi am ñaari fukki ak ñett nekk ci FC Sereng ca Belgique mooy ki njëkk dugal but ci histoire Gambie ci Coupe d'Afrique des Nations ki nekkoon joueur génération foot diggante 2016 ak 2017 may dëkkam bi di Gambie victoire mu njëkk ci phase finale CAN am na tamit ñeneen ñi jaaroon ci Ligue 1 bu Sénégal te bokkoon ci 11 de départ bu Gambie bokk na ci Assane Cissé jaar ci Casa Sport ak ñaari tali nekk jamono yi FC Zurich ca Suisse ki doon gardé kan Gambie yi di Modou Diop jaaroon na NGB Linguère bu Ndar ak Ndiambour bu ki nekk jamono yi gardien Blacks Léopard ci deuxième division bu Afrique du Sud def ñaari arrêt daanaka tëj bunt yi kii di Pape Ibnou Ba ak Souleymane Doukara mi duggul ci ñaareelu période bi ñaari attaquant sénégalais yi jël nationalité bu Mauritanie jotu ñoo may Mourabitouni seen victoire bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations si seen ñaareelu participation ñu fàttali ni ndorteelu match bi dañ ko retardé li ko waral mooy ay jafe-jafe yi amoon ci match bi doxoon diggante Tunisie ak Mali arbitre zambien bi di Kazoué dafa sifflé njeexitalu match bi ci 85e minute daal di sifflé waat 89e minute te temps bi jeexul match bi kon mujjee ci pëccëxoo jamono ji nga xamante ni Mali moo mënoon ci score bi benn bal ci dara di déposer ab recours waaye soo moyul dañuy ñàkk ci tapis vert ñetti bal ci dara ndax seen joueurs yi bi ñu duggee ci vestiaire yi dañoo bañ a ñëwaat ci terrain bi donte sax dañoo indi ñeenteelu arbitre bi ngir mu remplacer arbitre zambien bi Youssouf Bodian Bafoussam RFM Youssouf Bodian jërëjëf euh, wax ci nouvelle yu gaynde yi Nampalys Mendy Pape Matar Sarr ak Saliou Cissé ñoom wër nañ ba joge ci diwaan bu Ndakaaru dem foofe ca euh, Cameroun niki démb booru ñeenti waxtu la ñu décollé fii ci diwaan bu Ndakaaru war egg nag ci diwaan bu Cameroun booru une du matin bu fekkee amul luñu benn jafe-jafe ñeent joueurs yoo xam ne wër nañ ci Covid bi nga xamee ne moo leen jàppoon waaye am na ñaar ñoo xam ne jël nañ yees ci doomu jàngoro ci euh, démb ci alarba ji mooy Idrissa Gana Gueye ak Fodé Ballo-Touré mi ñu testé positif euh, niki démb ba yóbbu leen ca isolement ñoom sax bokkuñ ci séance d'entraînement bu démb ci ngoon ab séance boo xam ne à huis la doon amee dernière tàggatu bi nag euh, tey lay am bu 13h30 jotee di match bi door a dox diggante Sénégal ak Guinée aljuma 13 GMT. ngir euh, rencontre boobu sax euh, conférence de presse euh, d'avant match tey lañu koy amal ci kanam tuuti bu juróom ñeenti waxtu jotee GMT ca hôtel bu gaynde yi di hôtel Tajidor douzième gaynde mi nga xamee ne kon dañuy supporter gaynde yi am nañ njàppale bu état du Sénégal ngir gën a mën a kon ni supporter bu baax a baax ab enveloppe fukki million ak juróom lañ leen jagleel Euh, niki démb la leen ko ambassadeur bu diwaan bu Sénégal euh, ca Cameroun doon jox di ko jox représentant bu supporter yi compte rendu bu manifestation boobee di Sora Thiam. mu di xaalis bu toll ci fukki million ak juróom ngir gunge supporter sénégalais yi nekk ci na mu di nag subvention boo xamante ni ministre des moo leen ko daal di jox Ibrahima Ndaw directeur de cabinet mi ko fi teewaloon biral ni lu supporter yi mérite la. ñu gis seen taxawaay gis nu ñu Sénégal am ndam gis ne chaque fois suñu doon jouer ici ñoom dañuy ñëw participer te duñ leen jox dara bi yoon nag ñu ne danañ leen accompagner xëy na li ñu leen di accompagner du jël seen yëpp en charge mais dina leen wone que ñun. xam nañ li ñuy def ànd nañ ci li ñuy def te dañ leen encouragé. ambassadeur bu Sénégal fii ci Cameroun nag moom moo daal di nangu subvention bi jébbal ko président douzième gaynde local bi moom xaar Diouf nag ci gis-gisam lii lu ñu doom xaar la. dañu am cofeel ci seen réew mais ambassade bi aussi day def kéem talaay kattanam pour mobiliser sénégalais ci événement bi nga xamante ne dafa am solo ndax Sénégal gépp ñoo war a nekk derrière le lion rawatina. xam Sénégalais yi nekk Cameroun nga xam ne ñoo am chance tey ñu fi joué kan boo xamante ni bokk na ci kan yi ëpp yaakaar. gannaaw ba ñu jotee subvention boobee nag président bu douzième gaynde local bi daal di rafetlu li ni mel la moom Ibrahima Ndaw xamal ñu ne ndimbal li lu am solo la. Sénégal mooy suñu réew. daal bu Sénégal taxawee di joué nekk ci gannaaw équipe bi di fecc bi ñu ñoom maa ngi sant di gërëm su may àndaan naa tàngaam niveau de Cameroun supporter la may ñëw cette fois jël coupe bi yóbbu Sénégal. subvention boobee nag tax na ba douzième gaynde local bi nar a gën a mën a taxawandi ci ginnaaw équipe nationale bi ngir gunge leen ci yoonu ndam rawatina sax ndam la nga xamante ni moom la ñu bëgg juróom-benni fànn ci weeru février mu newoon Soda Thiam fii ci Bafoussam ngir radio Futurs Médias. jeexal xibaaru tàggat yaram yi ak résultat yu jongante yi doon am ca Europe tàmbale ko ca Angleterre League Cup bi demi-finale bi ñu doon jongante ci àllarba ji. Tottenham Chelsea moom moo ko mujj daan qualifié final benn bal ci dara dix-huitième journée bu championnat Angleterre retard West Ham ci àllarba ji daan Norwich ñaari bal ci dara super d'Espagne Real daan. FC Barcelone ñetti bal ci ñaar dem ca final bi nga xamee ne kon ñoo ngi koy amal jamono ji di ab tournoi foofee ci Arabie Saoudite ñetti bal ci ñaar gannaaw prolongation jongante bi di demi-finale Super Coupe d'Espagne ñoo ngi ko doon amal ci àllarba ji mbokk yi lii lañu ñu andi woon ci xibaaru tàggat